بسم الإله فن الدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله فن الدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله bismillaahi akdaar yaa Allah safi baqa abihim li fika yaa Allah yaa man lahul amru yaa man laa shariika lahu a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu nu sante sunu borom subhanahu wa taala julli ci moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddaliwaat sunu yaakaar ci sëriñ tubaa xaadim rasul ñu ngi ñaanal xalif général des mourides Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yal na ko fi sun borom gën a yàggal te gën a doole ak wéram kàttanal ko ba mboolem naali lislaam yi mu naalal lislaam sunu borom bàyyi ko fi ba mu àggale ko te ñu ànd koog moom te am ci ngërëmul sëriñ bi di jagleel ab ziar sëriñ Cheikh mbake Mbacké jëwriñu kër Cheikh Abdoul Khadir Mbacké waaye di jaarale ziar boobu nag ci buntam di jëwriñam di sëriñ Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Abdul Xaadir Mbakke mbokk yi ñu santaat yàlla mi nga xam ne moo nu mayaat ñu toogaat jataay bi nga xam ne yéen a ngi ko baaxoo di ànd ak ñun ci seen télévision bii di Lamp Fall TV ak rajo yi nga xamante ni bii ñoo ko baaxoo di ko ànd ak ñun lu mel ne ICAP FM ak Benno ak Lamp Fall FM waaye di ko suivre itam ci seen sit bii di Assalaamy TV di ko amal at mu jot fii nga xam ne moo di tool yi nga xam ne moo di jannatul mawa nekk ci yoonu njurul di suuf soo xam ne sëriñ Tuubaa Cheikh Saalihu Mbàkke moo ko tegoon ci loxoom mu di fi liggéeyal borom bi subhaanahu wa taala ñu ñaanalaat Cheikh Mahamadul Moustapha yàlla na ko fi sun borom gën a yàggal gën a dolli ak wéram dolli ko kàttanuk yaram ak kàttanuk xel ba lépp loo xam ne yéeneem la ci liggéeyal sëriñ Tuubaa suñu borom bàyyi ko ci kaw suuf ba mu liggéey ko ba matale ko te am ci ngërëmul sëriñ bi mbokk yi ñuy waajalaat bis bu tedd bi nga xam ne baaxoon nañ di ko waajale fii ci eh, daara ji te moo di bis bi nga xam ne mënees na ko tudd muy bisub ràmm waaye mënees na ko tudde bis boo xam ne bis buy far bàkkaar la waaye mënees na ko tudde itam bis boo xam ne bisub mbégte la muy bis bi Cheikh Abdoul Khadir Mbacké feeñe woon jamono ci ñetti fan ci weeru tamxarit ca Daaru Alimul Xabir Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waxoon ca waxam ju rëy ja waxoon borom Daarul Muhti na ko gan googu ñëw boo koy joxe aw tur ba dëpp nanga nga guddal say jéego ndax ku jàkkaarloog sa jëmm ji suñ borom jéggal ko ay bakkaaram loolu Cheikh Abdul Xaadir dund ko ba noppi jëfe ko loolu nag yaakaar naa ne buñ koy waajalaat ni mu ko baaxoo di waxee moom Cheikh Mamadou Moustapha ko am bagaan taatan ko ndax déggoon naa ci way juróom wu baax wa di Cheikh Abdul Ahad muy wax kuy ñaan yàlla bam mu ne la indi foo ko def doo ko jox ab super kon lu bagaan yi gën a rëy rek gën a baax waaye na set wicc te bagaan yi moo di xol bu set ànd ñëw nag fii ci Touba ànd kook ñoom su ko defee lépp lu ñu fi taatan bu ñu xëyee suñu borom jox ñu ko ñu ñaan nag suñu borom mu def jàmm ci réew mi te nawet bi nga xam ne moom la ñu dëgmal suñu borom may ñu mu àgg coleet te bañ a am menn ndog bu noppee it nag yàlla nañ ko jariñoo ci barke Cheikhul kon ñuy dalal sëriñ bi rek bàyyi ko mu nuyoo ak mbokki taalibe yi ñu fas yéene naat taataanaat nag eh, bind yu bees yi nga xamante ni bii at mu jot danañu ko baaxoo di ko joxe dañu ko joxe fii way da wa ilaamu di ko joxe Touba ci weeru koor wi bu ñu tolloo ci wàcce kaamilu alquran bi ñu jaajëfal bu baax bokk yi nga xam ne doon na ñu topp ak di ñu yónnee seen i xalaat ak di yónnee seen i cant ak seen i ngërëm ci ginnaaw bu ñu dégloo eh, eh, waxtaan wu am solo woowu nga xam ne waxoon nañ ko ci njeextal koor gi ak naafila gu am solo gi ñu àndoon ak moom ñu ñëwaat fii nag ci tool yi fekk ko fi fas yéene la taatanaat nag ay kàddu yoo xam ne des na ko mën a kon sëriñ bi bisimilah. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki jullit yépp di nuyu mbokki lislaam yépp waaye di leen nuyu ci turu sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké mi nga xam ne mooy jëwriñu kër sëñ Abdou Khadre Mbacké jiite màggal gi ne ci bopp kër gi ñu ngi leen di nuyu ci aw di nuyu bokk yépp ci ci aw turam di nuyu taalibe bi yëpp ci aw turam di ànd ñun ñëpp nag di waajal bés bu màgg bi di ci soññwaat ñépp muy taalibe bi yëpp bokk yépp soppe yépp ci aw turam ñu ngi leen ci soññaat di soññaat ñëpp ci njàngum alxuraan mi ci aw turam di leen ci soññ ci njàngum xasay xasida mi xasida mi ñu gën koo fonk bu baax a baax a baax a baax ndax mag mas na maa wax ne ma xasida turu yàlla yi maanaam bu fekkoon na ko mag ñi doon binde nga xam ne turu mu yonente bi ne dañ koy wertal turu yàlla ñu ne ñu xonqal ko boo ko tiimee danga xam ne turu yàlla ak salaatu ala nabi la xasida feese del waaw kon li baax lépp mi ngi ci biir mi ngi ci biiram kon ñu ngi ci soñ ñépp di di ñaan lu ko ci waaye jàngal yàlla yàlla nangu ko ndax euh, ku ko war sëñ bi dane woon ku ko war dana lay yóbbu fa nga fa fa nga bëgg a dem te du la waŋitu <laughs> dal ku baax ki moom la waxoon naa naaru góor la woo wax ne ku ko war dana la yóbbu ba fa nga bëgg a àgg te du la waŋitu <laughs> kon nag alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi ci soñ ñépp di sànji daa fu daaree sëñ Tuubaa mën a ne rek ñu ngi lay soñ ci njàng mi bàyyiwuñ kenn bitim réew it taalib yi ci ne yépp ku ci ne la nga mën a jàng ci alxuraan ak la nga mën a jàng ci xasiid ak la nga mën a def ci salaatu sa kurus nga defal ko ko ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di rafet njort nag ci bis bi di rafet njort it ci ne lu ci waaye sellal def ko ci fasoo ko ci mën nga caa yëg ndimbalul yàlla ndax bis la boo xam ne buñ buñ am yaakaar la ndax yi ngeen wax yëpp te Sëriñ Tuubaa moom li def ci ak njabootam li ñuy wax lépp ay ay ay la ay eh, waaye moom li ku ne xam na ne ñi ñu tudd di ko tudd ak ñi yar ku ci ne buñ ne sëñ bee ko yar lu lu baax lépp nga ci buñ nekkee ci njaboot ko sëñ Tuubaa xam ne lu baax lépp ngi ci biir da koy farañ fànce rek di ci génnee rek waaye lu baax lépp a ngi ci biir bañ xasee wax loola rek ëmbaale na lu baax lépp <laughs> Eh, noonu leen yàlla binde moo tax la ci suñu Modou Bousso waxoon rek doomam yépp ñoom ñoom kuñ ci waxtaane rek neel mooy sangub tànneef yi waaw eh, bu bu ñuy waxtaanee keneen boo ko diggee ni kii mooy sangub tànneef yi eh, ndax koo ci xam rek koo ci koo ci koo ci xam rek jàpp nga ne moo ci moo moo gën ci doomi sëñ bi waaw loolu nag moom moom rek la ko yàlla jagleel la muy ci mu ñëpp sant kon nag ñi ngi ci ñi ngi ci rafet njort bu baax bi ajwaa in min at tafaauli wa suróori wa tarxiib nastaqbilu haasal ixtifaal addiini yi alladi alladi nuqiimuhu sanawiyan taxliidan li dikra milaadiyati milaadiyati cheikh Abdul Xaadir Mbakke radiyallahu taala anhu wa nafaana bi barakaatihi fa jasaahu llahu alladi daxa xayaatahu kullaha fi xidmati l islaami wal muslimin fa jasaahu llahu anna xayral jasa ñi ngi nuyu ñépp ci ci jaw yi gaat nga gu rafet ak yaakaar ak rafet njort ci la ñuy séentoo màggalu Sëñ Abdou Khadir gi nga xam ne muy bëgg a ñëw màggalu Sëñ Abdou nga xam ne dundam bépp jeexal na ko ci liggéeyal lislaam ci ni ku baay ni ku waajuram bëgge te defee it ko it ci jiima roy tànki waajuram yi ndax ñëw ñëpp ku ci ne xam nga ne sëñ bi yóbbu na la foo xam ne sa jëfi bopp mënul fa yóbbu kon ñu ñëpp ñoom maase nañ xam nañ loolu xam nañ loolu te ku ci ne boo boo fekkee waxtaan waxtaanam dégg nga mu wax loolu ba tay <laughs> kon fi leen sëñ bi yóbbu ku ne xam na ko kon eh, ñi ñi ngi leen ci nuyu tey ñaan nag yàlla fayal na ko ci lim doon liggéeyal lislaam ak lim doon liggéeyal jullit ñi yàlla di lim doon defaral waajuram yàlla fay ko ci lu koy njortam bu ko dee nag tey waxtaan wi dama koy tënk rek te jëme ko nag ci mën a fàttali nit ñi ne lislaam dafa ittiwoo bu baax ci jamono ji june waaye jamono ji ñu toll rawatina ci dafa ittiwoo lool waxambaane gone ittiwoo gu kawe ittiwoo goo xam ne si kawe na lépp ndax wax gone ñooy jant bi nga xam ne ñu mooy jolli ëllëg mooy li nga xam ne ba ëllëgee mooy weex tal di melxat di di jant mooy jant bi nga xam ne bu ëllëgee mu maanaam ci jamono jii ne waxuma ëllëg de dama ne mooy jamono jii nga xam ne ci lañ toll mooy jant bi nga xam ne mooy mooy mooy jolli ànd ak leeram di xol bi nga xam ne mooy firfiri bi nga xam ne bu firfiri wutoon ab dund du am gone mooy loolu ci lislaam ci wàllu ko adduna wa hum qalbuha naabit alladi bi doonihi tatawaqafu alxayaat bu gone bu gone bu dutoon gone dundub dundub dundub adduna ci boppam rek la ñuy wax ne moo taxaw moo tax sallallahu alayhi wa ba tàyyi gone soññee ci ba tàyyi ba waxit ba tey nasarane shabab wa xasalane Euh, gone yi dimbali nañ ma mag ñi ci njëlbeenam mu ne ñi mag mag ñi jàppale wuñ ma waaye gone yi teel nañ ma jàppale <laughs> na lislaam na boo boo boo jaxlin ñoom mag ñi islaam nag dafa am lool dafa am itte bu wér ci jëmbat bi xarsil xaqidati diiniyati wal axlaaqiyati wa sumuy ruux yi fii xuloobi shabaabi mun su sibaahum lislaam dafa bëgg lool jëmbat jikko yu rafet yi ñu teel ko def ci gone yi ci biñ doonee gone gu ndaw lax tax na loolu wali saalika jaxalal islaamu makaarimal axlaaqi hiyal asaasul awwal fi binaa ir rijaali fi hasil ummati moo tax yàlla moo tax euh, lislaam fab soññee bu baax a baax a baax a baax def jikko yu baax yu rafet yi ñuy wax makaarimal axlaaq mu def ko muy fondation bu njëkk ci booy tabax ay góor boo bëggee tabax nit la ci jiitu mooy nga jëmbat ceeb ca fondation am makaarimul axlaax meenal ko ko tàmmal ko ko fexe ndax li li gën a for ci yar mooy alqudwatul xasana mooy ki ngay toogal jàkkaarloog moom muy saroyukaay gone bi mu amagut fukki ak ñaar bàyyam lay jàkkaarloon di wax dégluy waxtaanam di déglu li muy wax ak li muy jëf loola rek ci la war a jëmbatoo ci xolam ba nam war a mel luy si wërta wax fa la ko war a jàng bu du ko wax lees wërta jëf ci la jàng bu du ko jëf lees wërta xam ci la ko war a jàng bu du ko joxe du ko du ko du ko jëf te fekk booba ndax ba ba muy am fukki at ñaar ci loolu mooy gën a jeexeetal ci moom boo amee fukki at ñaar it école ba ak daara ja ñooy gën a jeexeetal ci moom ndax boobaa ni mu doon nekke ci penk waa waajuram dana wàññeeku waaye daara ja ak ñam fay nekkal boo waaye ña koy jàngal ca daara ja ndax fekk na njàngum alxuraan mi cate ña ko yor nag bëgg koo yar njàngum xam-xam bëgg koo jàngal alxuraan yi ba ba mu njëkk ba amee juróom-ñaari lay boole baayam ak jàngalkatu alxuraan bi waaye bi mu amee fukki at ñaar nag ca lay tàmbali beneen eh, maydaan moom muy suubi am am lef muy suubu moo xam ne nag mooy ànd ak ki koy jàngal mu day mën a jeexital ci moom ak mbedd mi waaw bu ko defee ki koy jàngal bu farloo rek mooy ëpp doole mbedd mi ci moom noonu la noonu lañ ko war a defee bu fa sàgganee mbedd mi daal ëpp doole ci xale bi yonent bi nag da ko bañ ba dane man biñ ma yónnee innama bu histu li utammima makaarimal axlaaq kon ci ngay xamee ne ndeke yonent yi jaaroon yépp ku ci ne axlaax nga indi woon waaye nag daa des porox bu yaatu boo xam ne ku dugg ci néeg bi ni ah jumaa ji rafet na wala étage bi rafet na wala euh, euh, sato bi rafet na waaye xam naa lii daal moom manqué ci way lii bu ko fexoon ba mel nangam yonent bi ñëw di loola <laughs> waaye sa yonent bi waxut ne dañ ma ñëw ngir ma indi makaarimul axlaaq kon day mel ne yonent yi njëkk indi wuñ ko waaye daa ñëw ngir mottali ko mottali koo xam ne bu ñëwutoon boo ko dugg ci tabax bi ah waa tur am na kon nag yonent bi sallallahu alayhi kon nag borom xam-xam yi nag am ci koo xam ne am na ci ñoo xam ne dañoo mën a gëstu loo makaarimul xam daanaka mooy lépp lu baax waaye am ku ne mën daal tënk naa ko ci lii li muy gàtt gàtt ko ko def rek makaarim ku ngeen ko gisee makaarim axlaax bu baree ngi ci moom ñun ñi ñëpp ku yër bu fekkee am nga ci benn nga ne ah man de ndeke am naa ci lu néew néew benn ku ku ci amul benn nga ne ah war naa góorgóor ba am ci benn <laughs> nga xam ne dañ la koy tënkal rek muy lu gàtt loo xam ne maanaam ah, dana amaati bànqaas nag waaye waaye lii daal mooy dàtt dàtt bi kenn benn boroom xam-xam waxat jamaha baaduhum xalaamaati xusnil xuluxi fa xaala huwa an yakuna kathiral xayaa yi naaw ndax eh, yonent bi moo njëkk wax ne isaa lam tastaxi fas nax maa siita kon nit daa war a bari kersa qalil al adaa kasir al salaahi saduq al lisaani qalil al kalaami kasir al amali qalil al zalali qalil al fudooli barran wasuulan waquuran sabuuran shakuuran radiyan xaliiman raqiqan xafiifan shafiqan wala la wala laanan wala sabaaban wala namaaman wala miqataaban wala xajoolan wala xaquudan wala baxiilan wala xasuudan bashaasan hazaasan yuxibu fi llaahi wa yabgadu fi llaahi wa yarda fi llaahi wa yaxdabu fi llaahi kama qaal cheikh alxadim xubbiya fi llaahi wa buxdiyi fiihi lii abdayaa maa kuntu astafi <laughs> borom ki ki ko jiima gàttal tënk ko dane man ne man tënk naa ne lii moom ku ci ne yaa ngi ci eh, makaarimul axlaax jikko yu rafet yi mu ngi ci yow ku ci am dara it am nga ci dara mooy na nga doon ku bari kersa ndax yonent bi nee na ku ku amul kersa loola neex mën nga koo jëf na nga doon ku néew lor koo xam ne lu la waay jege-jege dana xam ne yow amoo lor na doon ku bari baax na nga doon ko xam ne ñëpp xam nañ la wax dëgg la na nga néewi wax na nga bari jëf na nga néewi rëcc rëcc ndax boo dëccee dëccee ci dëkkee ci rëcc rëcc it eh, du neexa daa doy waar na nga néewi eh, larax fodool muy larax larax la ko war a di wax na nga doon ku baax na nga doon ku mën a jokk bokk na nga doon ku amuk wegu na nga doon ku mën a muñ na nga doon ku mën a sant yàlla di sant nit ñi na nga doon ku kuñ gërëm na nga doon xaliman mooy li ma doon waxtaan ci tabaski na nga doon ku lewet neex deret na nga doon raqiqan mooy koo xam ne ku nooy la ar huwa daqiqu latif ba raqa laana wa sahu la bu ne diw diw diw mooy ku koy ko di wax dëgg yàlla mbiram koy dafa dafa yomb daa nooy waaw mooy raqiq wax dëgg yàlla xafiifan na nga nekk ku fegu safiixan na nga doon kuñ sopp wala laxaanan bul doon ab móolukat koo xam ne koo gis móolu ko wala sabaaban bul doon ab ŋàññikat wala namaaman bul doon ab rambaaj wala mixtaaban bul doon ab jëwkat wala xajoolan bul doon ku yàkkamte wala xaqoodan bul doon koo xam ne da ngay een kenn bul nay wala xasoodan bul iñaan bashaasan nanga doon koo xam ne ku belli la ku la gis rek danay ndax ndax belli gi ndax nit boo ko tëjalee kanam sa kanam du la ñemee xasaasan na doon koo xam ne dangay ngay jaayu ngir bég maanaam da ngay nit ki da ngay da sax ngir bég na nga doon koo xam ne booy bëgg yàllaay tax noonu sëñ bi waxoon ne xobbiya fillahi wa baxdi fiihi lii abdaya ma kuntu astafi li nga xam ne man yàlla bind na ma man may sopp ci yàlla di bañ ci yàlla tax na li mboolem lu nëbb woon yàlla feeñalal na ma ko denc yëpp ma gis ko <laughs> loolu kon moom noonu la ko borom xam-xam bi tënkee e, makaarimul axlaax sëñ bi nag bëgg ñu bëgg àgg ci makaarim makaaral moo xam moo tax mu sant ñu lii mu ne yéen gone yëpp so dénk naa leen lii may bëgg a wax an taqsidul maratib al aliya in taqsidul maratibal aliya fastahmiloo biha siyal wasiya bu fekkee ba ngeen a jublu daraja yu yi muy yii mu leen bëgg a yóbbu muy ma ma yi yooyu bu ngeen ci bëggee àgg jëfandikoo leen dénkaane bii ma leen di wax aleykum bil ilmi wal xayaai wa shukri wal ixlaasi wa saqaay dénk naa leen ngeen am xam-xam dénk leen ngeen am kersa dénk naa leen ngeen di sant yàlla ak nit ñi dénk naa ngeen di sellal dénk naa leen ngeen tabe wassumti walxilmi lada taallumi wasabri walwarai walwarai wattafahumi dénk naa leen ngeen muñ ngeen noppi te lewet ci bu ngeen di jàng ak muñ ak sàmm ak bu ngeen di jàng li leen di wax ngeen di ko jiima digg waaye boo ko jiimuti digg doo digg de laa tuksirul kalaama war ruqaada wajtanibu maa yoojibul fasaada ni daa wax daa njëkk wax sax ne wajtahidoo fii taaxati rahmaani xaysu takoo noona bila udwaani ni ngeen farlu ci topp yàlla fu ngeen mën a ne te bañ noonoo nit ku baax du noonoo laa tuksirul kalaama war ruqaada wajtani boo maa yoojubul fasaada bu leen bari wax bu leen bari yàq na ngeen teetit lépp loo bu leen bari wax bu leen ba yandoor bu leen fonk yandoor nelaw guddi ruqaat na ngeen teeti lépp luy waral yàq mu bëggit kenn ku ne sa waxtu fonk ndax waxtu moo gën a seer ci nit tax sëñ bi ne wa arghabul ashyaa lil amwaati raddun ila dunya mahal xayaati walaw suwayatan faqat li yaamalu saalihatan tanfahum in xafalu nee na ñi mbooleem ñi ne ci armeel yi ak armeel yu mën a doon ci àdduna boo leen fa fekkoon ne leen lu ngeen gën a bëgg ñu defal leen ko dañ naa leen ku ma mayoon ma delluwaat àdduna donte mëtut waxtu ascaa rek la ascaa mooy lu mëtut waxtu ma jaamuwaat fa yàlla defe ko ni ma ko xame léegi nee na koo ko wax ne koo ci yeewoon ne ko pëkk-pëkk loolu la bëgg kon nag ñun ñi ne ci àdduna sëñ bi nee na te suñu dund jeexu ko war nañoo farlu te jii ma màng ci li des suñu dund moo tax mu ne faxtani man baax yi xam leen xat ma daa kon yàlla na nu ci yàlla ndax loolu bañ ñu bañ sànq suñu waxtu moo tax suñ bi indi ñu ko ndax waxtu dafa dafa dëgër am na benn waykatu arab bu yàgg bu ñu wax ibnu xayim waxoon na ne al waqtu anfasu ma unita bi xifdihi wa araahu ashala ma alayka yadiu waxtu moo gën a sell ci liñ la moo gën a gànjaru ci liñ lay wattuloo liñ la liñ leen a sonne ko ci wattu ko waxtoo ci gën a gànjaro teyit mooy li ci gën a gaaw a sànku <laughs> da ngay xool rek waxtu yu jàll <laughs> te te doo ko bàyyi xel moo tax sëñ Tuubaa dama bëgg ñoo soññ ñu bañ a neenal waxtu mu ne li anna kulla naf jawharatun nafisatun lam tanjili kenn ku ne na nga xam ne noy gu bàyyi ko ci yow wurus la wu gànjaru woo xam ne buñ la ko wonoon da nga naan ndeke lii ak wurus la woon wu ma yoroon te ko da ci bala laa jëriñ nag boo ko defee ci lu neex yàlla yumkinu an yastariyal kansa biha laa yatanaha xayruhu yomboon na ci yow nag nga jëndoon ci ndàmb ndàmb mooy mu léegi moom lañu wax lu mel ne trésor alal ju dul jeex mag ñi nag ndàmb lañ ko daa wax mënoon na ci am ndàmb ndàmb moo xam ne du jeex yiw du jeex mukk ci genn noy gi boo ko xamee nag bi nga nekkee ci àdduna xam ne ndeke man noy gu ne toll naa wurus wax ne mën naa ci jënd ndàmb danga nga da nga bañ a neenal sa dund te waxtu wu ne da nga bëgg li ci ëpp muy nekk ci loolu amal njariñ ndax addis yonent bi sallallahu alayhi da ciy njëkk wax ne laa tasuulu xadama abdin xatta yusala xan arbahin bu ëllëgee waaw am naa ko fi wax ba noppi xan xumurihi fi ma afnaahu wa an shabaabihi fi ma ablaahu wa an min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an xilmihi ma saa xamila fiihi yonent bi nee na bu ëllëgee kenn bu yomal xiyam balaa kenn buus buuse fi nga ne bala nga dox de fenn dañ la laa yend sa dund bi ci loo jeexal sa waxambaane gi ci loo ko nattoo nattu mooy isin wa waxan maalihi min ay alal ji foo ko fàggoo ak bi ko fàggoo ba noppi ci loo ko doon dépassé dañ dañ la koy laaj waani hilmi sa xam-xam bii nga am loo ci doon jëfe kon loolu ku ko xam da nga xam ne ndeke masuliya thaqila la mulqaatun ala xawaatiqina responsabilité bu diis la buñ sànni ci suñu ndodd wax na ci it ne yonent bi nee na ixtanim xamsan xabla xamsin sababaka xabla haramika wa ginaaka xabla faqrika wa siataka xabla maradika wa xayaataka xabla mawtika wa faraaxaka xabla xabla suxlika yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sa juróom a ngi nii waaye sëñ sax da ko way mën a andi wayu sëñ waxtani mu xamsan qubaylal xamsi kama bihi amara xayrul insi moom la wayoo addis boobu la sëñ bay awaluha shababu xabla al harami wa misluhu sihatu xabla saxami thaalithuha alqinaau xabla alfaqri suma alfaraagu xabla soxlin yasri xaamisuha alxayaatu xabla almawti fa saarihoo lil xayri xabla alfawti sëñ bi dafa wax ne sëñ bi dafa wax ne mànga leen juróom balaa juróom a ñëw ni ko yonent bi diglee sallallahu alayhi wa sallam ba ci njëkk mooy sa waxambaane gaawal màng ko balaa màggate ñëw <laughs> gaawal fexe ba feesal ko dell aku yiw balaa màggate ñëw nga tële wa misluhu sihatu qabla saxami sag wir xamoo kañ la wàpp di ñëw yàlla ci yàlla musal waaye na uh, bi nga wéree gaawal jaamu yàlla loo man ak loo mënut de ko def ak liggéeyal yàlla la ci ba ko ñetteel saari soo ñetteel ba alxinaaw xablal faqir bi nga woomalee xamoo kañ la ñàkk di ñëw xamoo kañ la tëlee di ñëw gaawal def ci lu neex yàlla gaawal sëñ bi nee na wërsëg bu la ñëw naa ko ci moom sëñ bi nee na wërsëg bu ñëwee dalay wax ne la ñaar nee na sëñ bee ko wax dalay wax ne la euh, ñaar de tooguma de damay wër rek <laughs> tooguma de seetal nag li la war ci man walla nga wala li nga nga nga def ci man li nga bëgg <laughs> li nga bëgg <laughs> ah waaye damay dem <laughs> sumal faraaxu xabla soxlin yësri bi nga féexee it gaawal njëkkante balaa soxlaa ñëw yësri joj dana dana la dog xabla soxlin njëkk soxla yësri jooj dana doge léegi soxla ji doge ñëw ndax àdduna noonu la bindoo bi nga féexee gaawal jaam feesal ko dell ak jaamu yàlla ndax ku baax ki da daa wax naan loo loo loo loo loo loo ne ba ëllëg bu dee lu baax boo ko defoon tey bu ëllëg da nga mën a defaat leneen mu gën a bari waaw loolu sëñ Tuubaa wax <laughs> loolu sëñ Tuubaa laa ko toore xam mi soo juróomeel bi nag alxayaatu xablal muuti juróomeel bi mooy dund gaawal balaa faatoo ñëw nga def ci nu leex yàlla loolu lañu sëñ Tuubaa kon nag sëñ bi moo tax mu ne fa saarihon lil xayri xablal fóoti njëkkanti leen def lu baax balaa faat kon li nga xam ne moom lay tënki mooy ngeen xam ne liggéeyal yàlla jaamu yàlla liggéeyal yàlla ci mbindeef yi jaamu yàlla ci say cir fi la tona ji ne fexe ba boole yaar yi yépp te xam ne liggéeyal yàlla ku ko def ci gannaaw sëñ Touba saxel war naa dal ndax wóor na leen ne moom nangol nañ ko nangool nañ ko wóor na la ne la la liggéeyal na yàlla ba yàlla nangu léppam kon ko topp ci gannaawam boo ko xamee noonu te topp te liggéeyale ko noonu sag nangoo dana yomb ci ci dara jee nangoom googee ndax daa ñaanal ñi koy liggéeyal ñépp yàlla na fa kamaa xaabilta min ni xidmata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam walam tahrim ni ajraha fa taqabbal xidama xuddaami na nga nangu liggéeyam ñi may liggéeyal waaw kon dañoo fàggul kon nañ lu ci jaamu yàlla gi ci nim ko bëgge góor góor ndax moom kat dafa jubóog yàlla ndax simaamu waraa xasri la dallaahi fi yadi wa maa rumtu min maali kin xaada bil ani loolu ba tey man loolu sëñ laa ko déggee woon mu ne si mu ne sëñ bi ne nee mu ne sëñ bi saara la njëkk bind si maamu waraa xasili la di lay fii di moom yàgg mu ne ndeke ni yàlla lay jëflanteeg man moo gën a gaaw saara in in mooy wax rek mu wommatul moom loola ñëw daa wax ne sa sa nos yi mbindeef yëpp mi ngi ci sama loxo sama jamono lu ma sàkko ci yàlla day wo mujj teew fi man dana mujj jooju nag mu ne day yeex na ci man léegi ni yàlla lay jëflanteeg man day wommatu fi saasa <laughs> daal ko def imqaad waaw kon nag ki ñu am war nañoo rafet njort ki ñu am suñ xel war na cee dal fekkee naa suñu suñ sa suñu Abdou di waxtaan ca nga ne ko suñu soxna mu ñëwoon suñu seexam si keroog waxtaanee xase yu bari ci bu mujj suñu seexam suñu saali ko nu man de xamu Mbàkke nu ñu war a def mu ak lu ñu war a wax ndax lii ñu am si mu ne ko xam nga lu ngeen war a wax di ngeen war a ndokke noonu waaw. loolu suñu ruxaay wax suñu seex ba ah, ah, ndax kii ñu am fàggu mu ne ki kii ngeen am fàggu na loo xam ne lu mat a fàggu lu mat a fàggu fàggu na ko ku mat a ñaagal it ñaagal na la te kum ñaagal sam ñaag ñëpp xaj nañ ci <laughs> loolu de <laughs> ah, kon nag kon nag moom borom màggal gi loolu la am na koo xam ne bañ nee ko fàttali koo xam ne bañ nee ko faatu na ñu ko ni ñi bëgg koo xam ne mun ah, si naa rafet ci ñoom njort ndax sëriñam di sëñ bi <laughs> ñaag na ko te yàqut te yàqut ñaag ba ñaag na ko te yàqut ñaag ba kon nag alhamdulilah na suñ xel dal teñ gën a góor góorlu gën a ngoy ci siñ bi te xam ne kat ni ko Cheikh Modou Fadil daa waxe nit du am lu ko jomb waaye dana am lu mu neen lii ñoom bu ñu jomboon duñ ko mën a am waaye nag xamuñu ko waaw muy sëñ bi waaw ñoo ñoo xam sëñ bi waaw kon nag yàlla nu yàlla dimbale ñu am ci ñoom ak dégg ak topp seen wax yépp ñu ñu ñu ñu dégg ko ci déggu xol di ko jëfe jëfu xol ndax ñoom ñépp di koo ci ne day koo ci xam koo ci xamut nam mel ci sëñ bi ña nga ci xa ña nga ci ña ña nga ci daal dégg ñuy wax ngay dégg noona rek la ñëpp mel ndax fi ne sëñ soe bu ak sëñ du Khadir mi ku ci ne du kenn du jaar ci turu sëñ bi waaw <laughs> waaw waaw loolu ku ci ne du kenn du jaar ci turu sëñ bi <laughs> waaw ah, sëriñ bi wala ku baax ka rek waaw <laughs> ah, dañoo xam sëñ bi kon nag sëñ Tuubaa moom li li li li li sama turando daa wax rek lim ma dell te gisaguma ko li ma teg saabat laa gën a wóolu ci lim ma del te gisaguma ko waaw kon waa këram ñëpp noonu lañ ko xamee waa këram ñëpp noonu lañ ko doyloo kum yar ku ne noonu nga ko doyloo kum bokkal ku ne noonu nga ko doyloo loola nag la ko def mooy ci jikkoom la ci matam la ci digganteem ak yàlla la ci digganteem ak yonent bi la lu ci ne matal na ko ba noppi bokk yi ku ne mu sédd la loo xam ne ni ko di waxe ak seexam yi ku mu sédd loo xam ne bëggoo di sa morom <laughs> kon nag yàlla na yàlla ñun ak dégg ak topp te bis biit na ko ñëpp rek fonk Euh, du fas yéene koo dundal fas yéene xam ne sëñ Tuubaa moom lu làmmiñam tudd ma ne saa xam ma ne amul leen day sar ndax am na boo xam ne daa wax ne sëñ mat jaxu paxa da koo laaj ne ko wade bi lu muy firi mu ne ko demal xool ko ca euh, xaamoos ci lisaanul xarab mu dem xool ko ci lisaanul arab ñëw ne ko ah xool naa ko muy soowul adabi ñaawuk teggin mu ne ko dama la koy bañ tudd ndax moo la ko tuddoon mu taqoog yow nga xam ne làmmiñ bi daa taqoog kon ko yëg kon kamel noonu nag kon lu mu wax day noonu lay sare kon nag yàlla na nu yàlla dimbale ñu yàgg ko teewe te yiw wim ci sédd sëñ Abdou Khadir ñi yàlla defal ñu ci bu baax a baax a baax defal ko mboolem fu ko waaye màggale rek nag nag ci ci réew yi defal ko mboolem taalibe yi sëñ Tuubaa yëpp defal ko jullit yëpp yéene nañ ko ñëpp ndax mbirum yàlla xatut mbirum sëñ bi nag mbirum yàlla la moo tax ñëpp xaj na ci waaw wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, sëriñ bi amaat nañ mbégte lool fii jamono toll ndaw ñi amaat nañ ab yóbbal waxambaane it amaat nañ ab yóbbal dafay mel na rek ayu gi leen sëriñ bi ayu woon rek nga leen ayuwaat ndax yaa ayu xos sibyaan boo ko sëriñ bi wax daa mel ne ndaw ñi dañoo dawoon rek dëgmal sawara sëriñ bi taxaw ci digg mbedd mi ayu leen na leen dëpp leen foo ngeen jëm du yoon wi tegtale nit nag yoon wu nga xam ne mooy tax ñu taxe waaye fii jamono toll it yaakaar naa ne message bu gën a fort message bi nga xam ne génne nga ko tey amul te loolu rek moo mën a jur jàmm moo mën a sobe it nit ki jamono ji nga xam ne suñu borom jox na ko kawar gu ñuur mu profitoo ci balaa kawar ga di weex mu ndawam googee mu jaay ko yàlla kon nag message la boo xamante ni bii na ko ñëpp bàyyi xel te dégloo ko xel eh, setantal ko kenn ku ci nekk am ko ci sa saamu bopp nga teggi ko jariñoo ko macha allah itam ci li nga jàngale ci njàngaleem sëriñ bi loolu nga da nga xam ne sëriñ daa nga wax ne sëriñ Abdou Khadir daana wax ne sëriñ bi raw ñëpp waaw muy waaw muy kàddu gu am solo loo xamante ni sëriñ bi déggee doomu aadama mënu fa àgg te itam tax waaw sëriñ bi gën a xam ñëpp waaw bi gën a xam ñëpp tamit dëgg yaakaar naa lim am ci boromam koo xam ne da daan wax naan su ma su ma waxee sama borom day mujj ba mu jàng ne day mujj yooju daa yeex léegi su may daaneel muy def waa nga xam ne mel ne bu may daaneel rek muy def la te loolu moo am eh, kon ñu ngi lay sant bu baax di ñaan suñu borom yàlla nga yàgg taxawe lii eh, ci ginnaaw sa kilifa yi suñu borom may leen fan gudd ñoom itam gu ànd ak wér te lépp luñ ci yëngu ci ndaje cee ngërëmul sëriñ bi kon bis baa ngi noonu war a doon vingt la 21 incha allahu rabbi di amee fii ci Touba muy bis bi sëriñ Touba euh, waxoon waxam ju rëy ja di bis bi Cheikh Abdoul Khadir Mbacke feeñe woon jamono ñu di ci séentu l'islam bépp nag waaye di ci séentu doomu aadama yëpp nag ndax sëriñ Abdoul Khadir jëriñ na doomu aadama yëpp te itam euh, képp koo xam ne sa bopp sax na jëm kaw say tànk jëm suuf koo mën a doon rek soxla nga ndimbal wala soxla nga njariñ te it Touba moom ndimbal ak njariñ rek moo fi ne te ku ñëw ci bis bi mën ngaa am ndimbal waaye man ngaa am jariñ njariñ yàlla nañ ko ci yàlla defal barke Cheikh Serigne Touba ñu sant ñëpp di leen gërëm di ñaanalaat Serigne Moustapha yàlla na ko fi suñu borom gën a yàggal gën a dolli ak wéram te musul ko ci mbooleem pakk yi ak ndog yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. براني الباغي من الأمراض وكب من أنكر باعترادي براني الباغي من الأمراض وكب من أنكر باعترادي له سكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات أذكره ذكر الذين شربوا من عذبه وللجنان خربوا حزت حياة لا ترى لغيره معجزة بانت لحسن خيري بسم الإله فن الدار الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله يكفيني القدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله بسم الإله يكفيني القدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك